di as góor bàyyee ko ba mbuur ñëw file ci wax yu Baqiya ngir nemmeeku see waajuram ak i doomam yi nga xam ne ci bërëb bi lañu leen denc gannaaw ni gëj na fii ci ab numéro bu ñu ko jébbaloon la tënku rek ngir mën a teel a saytu bàmmeel ya muy seet. fële sama yaay nekk fële boo toonee nii am na mu toog doo nekk fële mhm. ca weeru kii foofu sama yaay nekk mhm. sama doom mooy fi mu waroon fi mu waroon sànq fi mu waroon waaw. Mhm. léeg-léeg danaa fi ñëw waaye nag waaye màggal màggal danaa ñëw mhm. waaye géej maa ñëw dana ma feebaroon mhm. mais fee léegi defe naa am naa ñetti màggal yi ñëwuma mhm. daaw ñëwuma ndax feebar ren dina dama ne far si yàlla bu sax damay dem sonante bi li yombal caytu gi nag mooy taxawaay bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma am na ko ci wax yi la ñu dippe Baqiya féete ci penku tuuba te ñeenti kilomètre dox digganteem ak jumaa ju mag ji. am na ci barab bi ñu ngi dimbali taalibe ku fi dikk boo jaaree war a jaar dëgg. li nga bëgg di ko am ni nga koy amee mooy da nga ñëw jaar ci biro bi joxe joxe date date bi ñu ko fi dencee ak at mi ak euh, tur sëriñ kër sëriñ bi ko doon taxaw ñu orienté ko jox ko numéro mu dem depuis nag tey jii bi màggal gi démarré ba tey tey jii tàmbali nañ ko tàmbali wér ku bu ñëw ku ne yaakaar ji fi nekkoon fi ba tey ndax fii moom yaakaar du fi tase mu bërëb bi ñu ngi ko taxawal ci bésub fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2014 ci ndigalu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke mi fi nekkoon ci kilaafa gi mu yaatu lool tollee sax ci ñeent fukk ak juróomi hectare boobu ba tey nag waax yi làq na ay junniy junniy waaye taalibe. nombre bi moom su fekkee dañu doo def global quatre-vingt mille et quatre-vingt mille personnes yu topp mënu ñu la wax lépp lépp lépp nag waaye quatre-vingt mille yi moom mat na biir na ma ni quatre-vingt mille na ndax. Euh, at mu ne dañuy liggéey janvier ba décembre at bi ma tey ñu global lépp c'est calculer ko xool nombre li fi dugg Euh, ak kaay yi accident yi ak yeneen yi ci des ak xale yi indaale bakkan ak ak euh, lépp daal dañ koy xam waaye ki tënk daal quatre-vingt mille yi moom topp na moom. fu nekk nag de la taalibe yi di bàyyeekoo ngir ñëw ziar si ci bërëb bi. Tamba. xanaa ñëwoon rek ziar ñi fi nekk ñëpp rawatina sama waajuru jigéen bi nga xam ne ni moom daa sore woon si man muy kenn si man ñu dencoon ko fii nag waaw ma ñëwoon ziare ko. maa ngi jóge Thiès. ñëwoon màggal si teel a ñëw pour euh, ñëw teel a ñëw mën a ziar si sama waajur moo nekk fii ci bérébu sëñ Massamba bi. da koy faral di def chaque màggal. waaw chaque màggal évidemment mais cette année avec l'affluence et les conditions la situation sanitaire je me suis dit que nii naa teel a ñëw def ko d'ailleurs li ma nekkoon foofu sax moo taxoon excusez-moi takku ma woon masque bi. mais teel a ñëw pour mu bañ a xat demee ma def ko ak euh, ces périodes de canicule ak tàngaay beeg yooyu. maanaam dëgg la bu fekkee xool nañ ko Thiès ak région Thiès moom jàpp naa ni bari na ci lool lool région Thiès Kaolack kasaalika na ko noonu waaye daal ñooy ñaar yooyu moom ñoo fi gën a ëpp luñ fi ñoom ndax Thiès ak région bi moom. mën naa la boo ñëw di ko xayma dana dana dana jéggi daye lool lool lool ba yëgg ci aw maa ngi siyaar ci woon sama yaay mu ngi fa moo fi nekk sama papa moo fi nekk samay maam moo fi nekk samay sëriñ ñoo fi nekk samay mbokki jullit ñu ngi fi fii ku fi ñëw jullit yëpp ngay siyaare bu ma xasee ba ñëw rek jullit yëpp lay siyaare. ay kilifa yu liggéey ci yoonu murit liggéey bu mucc ayib it boo yegsee ci bërëb bi fekk fi seeni rawdu. Eh, ci kilifa yi miir bii ci miir bi bu weex bi ngay seet nii. boo xoolee mooy waa kër Cheikh Modou Lamine Baara sëñ Basiru sëñ sëriñ Basiru Baara mi ñu denc fi ak yeneeni kilifa ba ci doomi Cheikh Sidil Mokhtar Cheikh Baara ñoo ñuy kilifa yi tedd lan woon ñu ngi fii am na yeneen yu fi tëdd ndax sëñ Abdou Samatum sëriñ Fallilu mi ngi fi euh, sëriñ Afim sëriñ Fallilu mi ngi fi euh, sëriñ Abdourahmane Fall Tilala nekk ni si daaw mi ngi fi mi ngi fi Cheikh Béthio Thioune mi ngi fi ak ñeneen i ñeneen i kilifa am na fi jàmbaar joo xayti ni war lu fekk doomu aadama ngi dox ci kaw su war nañ koo ñaanal jumaa ji mi ngi nii ci biti muy alaaji ma njaay jong mi ngi fii ca nëgëni si daaw mi ngi foon mu ji tëdd fii nag sëriñ tubaa xaadim rasul moo jële maamam gànnaar ñu koy wax soxna nasarala ay dara di sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ tuddee ko soxna mbàkke moo jur soxna aminatu muy waajuram kon Chérif Abdourahmane la ko sëriñ Saliou waxoon ba mu koy wuy ji ne ko fekk ma njàppandal bi mu ñëwee njàppandal sëriñ Saliou dane ko sa maam rasulillahi moo ma ne ab sëtam nga waaw mu jël tànkam gépp nag ak léppam teg ko ci lislaam di liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul partout dans le monde jaarale ko nag ci ki nga xamante ne moo doon xemmam téefam di Cheikh Ibrahima Fall Lamp euh, ba ni ko nit yi gisee bëri na ci àdduna jeunesse boo xamante ne Chérif Abdourahmane mi tëdd fii moo leen dimbali. fi li ñu denc Chérif Abdourahmane Tilala moom mu ngi dendee ak du Cheikh Béthio Thioune. fii nga gis mooy barabu Chérif Abdourahmane fee it dend ak moom mooy barabu Serigne Béthio te ñoom ñaar kat bi leen Serigne Saliou di présenté nga xam ni bis boobu Serigne saaliw wax na Chérif ne ko Chérif mu ne Mbacke mu ne ko xam nga Béthio mu ne ko waaw mu ne ko Béthio xam Cheikh Béthio xam nga Chérif mu ne waaw mune ne damaa bëgg ngeen ànd te jàppante ndax seen kër yi àjjana yi ñoo dend boobu lii xewagul. waaw ba yàlla firndeel ndax waxi waxi doomi Serigne moom du luy naax saay. dana ko woon seen kër yi na ngeen jàppante ngir seen kër yi àdd àjjana yee denn ba mu ko waxee démb boobu ñu ngi ci kaw suuf waaye lii tey firnde na na sëñ Thialiou waxoon dellu si na muy seen kër yee denn. Baqiya ci askanu murit nag bërëb la bu làmboo ngërëm ba tax na ñu bari ci way taalibe yi di mbëbët ñu denc leen fii suñu dëddoo du ko nekk nag lañu fiy denc. donte néew yi dina ñuy faral di bàyyeekoo ba bitim réew. ne denc bi bitim réew yi lu fay jóge ni ñuy saytoo fii lañ koy saytoo bitim réew lu fi jóge lu leer nañ lay doon danañ coordonné ñooy yor ni rob ba indi ko ñu xam li mu doon ku doonee li mu doon coono doon koo xayti ni ku war a dugg fii la ala kulli yi dina si bu nekkee ku nekkee ku fi wartu dugg moom sëriñ bee koy dëppal boppam du ñun. loolu ñuy wax borom ñaari tur yi ñëw nañ fi ba tàyyi ñenn ñi ñëw nañ ak ñenn ñi bu ñu yegsee tamit am nañ ci résultat boo xayti dem nañ ba gungewaat leen ban wéññeekuwaat ñu delluwaat ñoo xam fu ko yóbbu waaye di doon armée yi borom ñaari tur yi ndax fii moom li ñu wax rek euh, sëriñ bi moom mooy mooy seggal boppam mooy mooy seggal boppam ñun saay si rek lañ yor waaye ku fi war a ñëw ku ne di fi ñëw waaye borom ñaari tur yi moom saa su nan bàyyi xel ne am nan ay ay ay ay représentants yoo xayti moom euh, jànkonte nag ñoom kun gis naka su noonu dinañ woote dinañ ko bàyyi xel bu dikkee moom ñi fiy liggéey dinañ ko saytu bu wér peng ba bu yegg ba te yegg si moom fii du fi yegg si. waaxi bàq ya nag muxaddamatul xidma moo yore lépp lu jaare rek ci ay kayit ngir man fi jébbal ci anam yi gën waaye taalibe yi ñooy joxe numéro yi ñoo koy bind binditit ci plaque ya nga xam ne mooy tax ñu mën a ràññeetle bàmmeel yi ak ñañu fa denc Lula!